بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بقي دغلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم إنا نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ونعوذ بك من عذاب في القبر وعذاب في النار بقي سيدا فهم سيان رجو تي وقتاني فجر من دفا فجر بيت وقت وي دلو سنة تكاتنا سنة برام تبارك وتعالى دلن كو دفل سي جنجي عندك سيان بقى عليهم صلى جنابين سنتي الله سبحانه وتعالى جلو جنون صلى الله عليه وسلم ñaan jàmm ci réew mi ak réew yi ko ni ñu koy baaxoo di defee fajaru dimaas mooy ànd ak yéen ci wa ma ataakum rasulu fa mun lañ tuddee jataay bi tabaarakallahu bi eh, ci jàng ci fajaru dimaas lu jëm ci ni ñuy pratiquer suñu diine bind bi nu weesu noo ngi woon ci sujootu jamaj liy waral jamaj ak lan mooy jamaj jamaj mooy juum ci julli juum julli lu ëpp mbaa nga juum julli lu lu matut walla nga sikki sàkk mat naak matut loolu bind bii weesu ci lañ ko doon indi tey dañu ñëw ci beneen bind ba am solo mooy jullik mbooloo tey dañu ñëw ci bind bu am solo muy salaatul jamaa jullit mbooloo jullit mbooloo sunna mu akkada la sunna mu akkada mooy sunna suñu dëgëral sunna su dem ba bëgg a mel ni farata wala sunna suy bëgg doon waajib mu nga bu fekkee julli ga jullig farata la su fekkee nag julli ga du jullig farata xanaa jullig naafila la fahiya mu baax mu baaxa euh, dafa dagan moo xam xablal jam xal euh, moo xam xallal jamcu am kasur mu xam mbooloo ma bari na wala néew na ndax jëleen ca sallallahu alayhi wa mu ne mas naa julli julli coobarewu nit ñi ànd ak moom julli waaw wa salla maahu anas an yamini mas naa julli julli coobarewut umu salim ak umu xaraam julli ci ginnaawam loolu yàgg na koy def li muy julli nekkul julli farata naafila la am ca ñu ànd ak moom ca naafila ga kon dagan na waaye bu dee jullik farata sunna la su dëgër wala suñu dëgëral jullik mbooloo addis yi ca ñëw di soññ ca baaxaay ga addis yi ca ñëw di soññ ca njariñ la addis yi xaw nañoo takku xay na suma leen ci limalee juróom-benni xadis dana doy sëkk insha allahu subhanahu wa taala bi ci njëkk ñu ngi ko jële ci ibnu omar radiallahu anhuma yal na yàlla bég ci baayam bég ci moom نانا يونت بنانا صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفضل بسبع وعشرين درجة متفق عليه نانا جلك مبالا ابن جلق كان نار فك درجة جروم نار نار فك درجة أجروم نار daraja nag ku ci nekk léeg-léeg nga wax ne luy daraja waaye man bu ma koy misaal ku mel ni nogay wala ku mel ni bàyyi galaay dama koy wax daraja mooy mille francs boo jullee sa kër mil francs rek ngay am soo jullee ci jàkk ji am vingt-sept mille lu rek la soo jullee ci jàkk ja vingt sept mille ngay am boo jullee ci kër ga mille francs ñaar fukk ak juróom-ñaar nag ku ne xam na ne moo ëpp benn ñaar fukk moo ëpp benn kon te dara ja ëpp na mille francs dama koy misaale ci noonu ndax nit ñi mille francs xam nañu ko te itam yitteel na leen waaw te yonent boon waxoon ne dee leen wax ak nit ñi fi ñu toll dee leen wax ak nit ñi fi ñu ndax ki soxla courant du branché ca post ba du baranche ca poto ba mukk Senelec a koy branché ca poste ba ca poto ba defal ko ci këram indil ko compteur ak ñoom seen yooyu moom contact ak fay rek la fay nekkee ak fay courant <laughs> waaw ak fay courant seeddet waaw ngoog nee na jullig mbooloo ëpp na jullig kenn ñaar fukki daraja ak juróom-ñaar loolu ko ko déggoon rek te yem ci duutoo jullee ca kër ga ndax wóor na ma ne kenn ku ne jàkk ji nekk sa koñ bu fekkoon saa boo sëlmalee ilimaan joxe ku ne vingt-sept mille kon duutuñu noddu kon duutuñu noddu loolu mooy addis bi ci njëkk ci juróom benn addis yi ma leen bëgg limal bu ñaareel bi ñu ngi ko jële ci abu hurayrata radiallahu anhu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa salaatu rajuli fi jamaatin تدعف على صلاته في بيته وسوقه قمصا وعشرين ضعفا نعم. أو كما قال آه، نانا جولي قواي تيمبولو ابن جولي جولي مشكرم ولا جولي مشبتيجم نعرف كي درجات جروم maanaam Moussa Bey ci Sandaga bu nekkee ci bitig bi julli jot mu lal sajaada julli fa bokkut ak bu fa bàyyee bitig ba dem ca jàkk ja julli fa bu demee ci jàkk ja julli fa ñaar fukk ak juróom ñaar lay ëppe bu jullee ci bitigam walla mu jullee ci këram en tant que commerçant nag Moussa bi day daal di xàmmee kon marchandise mi mu mën a am marchandise mi mu mën a am vingt pour cent ak marchandise mi mën a am pour cent loolu commerçant boo ko xamee da nga xam bu baax mbirum commerce mi waaw tijaaratan lan tabuura <laughs> mooy loolu Sëriñ Sam Mbay moo ko daan firee noonu rahmatullahi alayhi mu ne loolu su fekkee ne jàpp na njàpp lu rafet su fekkee jàpp na rafetal njàpp la dégg su fekkee jàpp na rafetal njàpp la sedd nag njàpp lu rafet daf ciy jafe sedd bi njàpp lu rafet daf ciy jafe walla am xew am xew ci jigéen ñi njàpp lu rafet daf ciy jafe waaye daal su jàppee rafetal njàpp la daal di génn wuti jàkk ja te julli doo nga ko tax a dem doo jéggo benn jéego lu dul ñu yëkkatil la daraja bu beneen jéego ba ñu faral la ca bàkkaar ba baa ngay àgg jàkk ja allahu akbar Musaa Bey bàyyi fa bitit ba wuti jàkk ja jéego bu mu jéggi sunu boroom yëkkatil ko ja mu jéggi ba ca des mu sippil ko bàkkaar mook moom ba baa muy àgg ca jàkk ja nee na ba àgg ci jàkk ja malaaka ya tàmbali di la ñaanal yonent bi mooy wax de ci jullit mbooloo malaaka ya tàmbali di la ñaanal waaw li feeg yaa nga toog fa nga jullee di xaar julli waaw mu ne allahuma salli alayhi loolu la malaaka yi wax allahuma salli alayhi allahuma salli alayhi yeneen malaaka naan amin naan allahuma arhamhu malaaka naan amin loolu lañ lay ñaanal allahuma salli alayhi ñu yàlla kii Moussa Bey mii bàyyi palaasam bi ñëw ci jàkka ji toog client yi war faa ñëw di ko xaar mu bàyyi leen fu moom di xaar julli yàlla yàlla na nga dolli xéewalam ah, <laughs> déggal li malaaka yi ñaanal commerçant bi bàyyi bitigam ñu naan yàlla yàlla na nga dolli xéewalam te sëriñ Abdul Ahad moo daan wax ni xéewal ak nawet du benn mu ni xéewal ak nawet du benn nawet mën naa am te nit ki du am xéewal waaw xéewal mën naa am te nawet du am malaaka yi naan allahumma arhamhu allahumma arhamhu yàlla yàlla na nga ko yërëm ñaari ñaan yi jar na tëj sa bitig bu dee ci almamlakatul arabiyat saudiya tabaarakallaahu ñoom dañuy gàll aw sagar ca euh, bitig ba rekk dem julli ji màkkatal mukarrama ak madina ak ak dëkk yooyu alayhi salaatu salaam nee na ku xas dugg ca jàkka ja toog di xaar julli yëgal ni yaa ngi ci bindali yiw tàmbali na moom ku di xaar julli yëgal yaa ngi ci julli seytaane nag mooy téye léeg-léeg nit ñi <laughs> ci ci ci biti naan la boo duggee waxtu wi nangam xaaral tuuti euh, liqaama guñu fii ak 15 minutes dinañ liqaam wala fii ak 5 minutes wala des na nangam ñu liqaam nga tëdd sa kër rek ba nga xam ne liqaama ci des nga ñëw léeg-léeg nga séen ñoo xam ne ñëw sax ba ci buntu jàkk ji seetaane téye leen fa ñu taxaw foofa di di di xaar liqaam naan bu mu duggee ñaar ràkk yi nu ma koy defar bon bu ma ko fi tàmbalee du àgg su ma ko jullee damay juyoog waa jàkk jeeg ñoom seen yooyu tabarkàlla seytaane téye la fa rek ba ñu liqaam mu doon la wax mën ngaa dox léegi ala kulli xaal boobu mooy ñaarlu addis ci juróom-benni addis yi ma leen bëgg a limal te jëm ci ngëneelu julli mbooloo bu ñetteel bi jële nañ ci abu hurairata abdurahman ibnu saxra dawsi radiallahu anhu مني أتى النبي رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قاعد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله أن يرخص له فيصلي في بيتي فرخص له فلما ولى دعاه فقال له هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم قال فأجب رواه مسلم professeur ji bi bi moom beneen affaire la mooy kii silmaxa la kii silmaxa du gis mu ñëw ci yonent bi dégg li muy wax ci jullit mbooloo gi muy wax mu xemmem ku mu ne ko waaye man man de silmaxa ëwma awma ko mu amat indi ma ci jàkk ji ma bëggoon nga nga may ma autorisation wu may jullee sama kër yonent bi ne ko ah waaw yow kay may nañ la autorisation ngay jullee sa kër si la ma xa gën a jërëjëf daal di ñibbi yonent bi woolawaat ko si la ma xa nga dellu si jàkk ja yonent bi daal di koy laajab laaj buñ noddee da nga ko dégg mu ne ko waaw mu ne ko kon del wuy ji ndax noddukat bi yow lay woo ah waaw tabarkàlla yow lay woo mu ngoog imaam Mouhamadou Lamine Diop nee na aji noddu ji bu fekkee dégg nañ li wax mooy xayyaa kaay leen kaay leen xayya ala salaa kaay leen ci julli gi xayya ala falaax kaay leen su ngeen bëggee mucc waaw al falaax kaay leen dugg mucc gaa ngi waaw noonu xale yi ne ci Eh, tubaarkàlla super yi waaw super yi muy oto yooyu nga xam ne <laughs> tubaarkàlla oto yi oto yi jaboot yooyu super ndeysaan rahmatullahi alayhi yal na ko yàlla yërëm super lu ne defal nga ko ku am dërëm dem ku am am fukki dërëm dem <laughs> seetit super waaye ndeysaan dégg naa lee mu jóge fi waaw waaye tubaarkàlla super gàcc ngalaama lu ne defal nga ko yow super waaw bu fekkee yaa ngi dem bàyyi bàyyi <laughs> waaye super <laughs> xale bi day ni ci ginnaaw di woote naan dakaar dakaar wala mu naan géejawaay géejawaay xale bi bu feesee mu fëgg oto bi départ jàkkatam nun la bilaal bi mooy wax waaw haya ala salaa haya ku jëm ci julli ñëwal hayal falah ku jëm falah ñëwal bu ko defé ñi bëgg dem ñepp ñew ñu né bilal acca waxal iliman mu départ mu né ko khadu khamati salat imam dani allah akbar auto bi di départ tabarakallah motax jakk yi nga xamné e, jakk yi këlaandoo la <laughs> bu yomal xiyamé ciol di bari bay bëgg dé défar len jakk yi ba du nekk jakk yi parce que jakk yi tabarakallah waaw xam ngeen clando ala kulli xaal maa ngi ci hadis yi nga xam ne moom la yonent bi wax pour soññ ko nit ñi pour jullit mbooloo silmaxa gi ñëw ne ko dama bëgg nga may ma sañ-sañu jullee sama kër mu ne ko waaw waa ji ñibbi ca kër ga yonent bi woolawaat ko ba mu ñëw mu ne ko buñ noddee da nga ko dégg mu ne waaw mu ne ko fa ajib kon del wuy si bul jullee sa kër silmaxa nag la wax mu mbokk yi koo xam ne yow silmaxa woo kon no no war def yow woro fa jema nek mukk di laaj ay autorisation wa anhu jele wat nañ ci abu hurairata rajala anhu anna rasulullah yuqal والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالفه إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم متفق عليه bi moom yonent bi dafay wane sanction yi ñu war a teg ku julliwul ca ca mbooloo ma waaw penn yi ñu la war a teg wala boog àtte yi professeur yonent mu ne giñ naa ci ki yor sama ruux gi giñ naa ci yo ki yor sama ruux gi kooku yàlla mu ne ñàkk ñëw ci mbooloo mi dem na ba jaral ma dem na ba jaral ma ma jëndi matt wala ma yeble ñu taxanali ma bu doon tey danga naan jaral na ma dem jëndi gasoil wala essence bu doon tey ci buñ ko doon misaal tey loolu la yonent bi wax jaral na ma dem station ba jënd essence allahu akbar waaw dem station ba jëndi essence ak almet dal di ne jenn waay ci nit ñi déggal waxul ma wax Aboubacar wala Omar de déedéet day wax jenn waay ci nit ñi rek jiital nit ñi nee nañu ñu tàmbalee julli su ma u xaalif ma doxee ginnaaw nee na man ma bàyyi fa julli ga dellu ca kër ya képp ku ma fekk di moo ca julli ga man lakk sa kër ah waaw yonent bi ko wax waaye boo ñëwoon Dakar ndaw lakk kër yu bari kër yu bari la yonent bi taal kon su boobaa nee na loolu jaral na ko ko waaw ah, waaw loolu jaral na ko ko tabarkàlla maam Cerno Birahim radiyallahu anhu daana ñu wax ni ku ma sen ci dëkk ba ñetti fan ñëwoo ca jàkk ja musalaw dàllam seet la xanaa dara dalaa dal boo ne dara daluma mu ne ah nun kat mënuñoo dëkk ko dul ñu si jàpp waaw boo ne daraa ma daal mu ñaan la wér te ñibbi <laughs> day ndeysaan kenn mësu koo gis rek wala si nafsi bi yadihi yonent bi ne gin naa ci ku yor sama ruu gi ñàkk ñëw ci mbooloo mi jaral na ma ñadul ñadul ñëw ma yeble ñu taxana ma mat ma jox jenn way mu jité mbolo mi man mu joggé fa dugg ci kër yi bép pa bu ma fekk ñëw ci jakk ji ma tal sa kër u harriq nak bo gisé ñu sadd ñu sadd raagi <laughs> ñu saddaraa gi waaw he he docteur Ahmed Lo bo gisé ñu sadd raagi ñu mo ñom ñoo ñuy jàngal yooyu mooy bu lakké kër gi nga défarat sa kër ñëw jakk ji daf koy lakkat nga defaraat kër gi ñëwoo ci jàkk ji mu lakkaat ko tabarkalla lakk rek lu tax mu ne parce que ñëwoo ci julli mbooloo gi mu ne bu ñëwoon Dakar <laughs> am na am na ñoo xam ne ji xamu leen balaa leen xam mooy buñ faatu buñ indi leen ci morgo bi la leen jàkk ji door a gis du ñëw du ñëw fajar du ñëw tusbar du ñëw takusaan du ñëw timis ñaar leen di indi ci jàkk ji takk ab sëy wala ñu faatu waaw moo tax yonent bi alayhi salaam bu fi nekkoon taali kër ba tey sallallahu alayhi wa ak mbaax ga raufur rahim téewul muy taali kër lu tax parce que ñii ñëngu ñoo ñëw ci jàkk ji boobu mooy ñeenteelu addis ci juróom benn addis yi ma leen bëgg limal tabaarakallahu ci euh, jullit mbooloo جرمل عدس بنين كجلتي ابن مسعود رجل عنه من يننت بنانا من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المختلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادي بين الرجلين حتى يقام في الصف رواه مسلم allahu akbar abdullah ibn mas'ud na abdullah ibn mas'ud moo wax ni koo xam ne bëgg ngaa dajeek yàlla ëllëg nekkub jullit bu mu nangu sa njullit abdullah ibn mu ne koo xam ne bëgg ngaa dajeek yàlla ëllëg nekkub jullit mu nangu sa njullit na nga sàmmoonteeg julli juróom te di ko jullee fañ koy wootee ndax yàlla moo yoonalal seen yonant ba yoonu njub te nee na yoonu njub woowu ca la julli juróom bokk te di ko jullee ca jàkk ja fañ koy woote mu ne bu fekkoon ku ne ci yéen day jullee këram ni ki narte ñëw jàkk di jullee këram mu ne kon bàyyi ngeen seen sunna si ba mu ne tuddoon bu ngeen bàyyee seen sunna si ba yoonam wa sànku yoon wu ngeen jaarati du woowu mu ne moo tax ñun saxaaba yi daaw ñu gis kenn di wuute jàkk ji lu dul ñun ñëpp ñu xam ne kii naafiq la mu ne danga nga daan gis jenn waay ju sibburu mbaa mu feebar mbaa mu asma mbaa mu am tension mbaa mu am jabet xeeti feebar yu mu am ci benn mu ne waaye ñaaray ñëw këram lëng ko indi ci jàkk ji ba taxawal ko ca sàppe sa ñaar ñoo ñëw këram lëng ko ba indi ko ci jàkk ji mu taxaw ci sàppe si allahu akbar lay ndeysaan moo tax léeg-léeg nit daana rate jàkka ji bu nit ñi jógee ca jàkka ja sa kër la jaar di la jaale julli gi mu sigil ndigaale julli gi nga ne sigil sa wàll <laughs> yàlla boo ko tardeti nga ne amin hadis bi ci mujj ñu ngi ko jële ci abu darda radiallahu anhu mu ne ma min salaasatin fi qarya wala badu la tuqaamu fihim salaa illa qad istahwasa alayhim shaytaan fa aleykum bil jamaa fa innama yaakulu dibu min al ganami al xaasiya rawaahu abu mu ne dégg na yonente ba naan amul fenn fu ñetti kër di am ñetti kër ci dëkk te duñ taxawul jullit mbooloo lu dul seetaane tasaari seen diggante ba ñu nekk ay noon mu ne kon fexe leen samp mbooloo tey ànd ca mbooloo ma ndax till xar mu beru lay lekk till xar mu beru lay lekk juróom benni addis ngi nii yoo xam ne daf ñuy son soññ man ak yéen ak mboolem ñi ñuy déglu ci jullit mbooloo kon ñun ñépp nañuy julli ji ca jumaa ya ak ya te bàyyi kër yi balaa yonent bay lakk sunu kër fii wala mu koy lakk fële jërë ngeen jëf ca ànd beeg Sud FM seen rajo beneen bind mu noonu buñ ko dégloo ñaari yoon incha allah ba jàpp ñett dana ñu ñëwaat ci li nga xam ne moo ci tege yal na yàlla sàmm leen sàmm nu yal na yàlla aar leen aar nu wax nañu ak seen i fër tey jotaay bi ndax suñu mbokk yi ci xibaar yi ñu ngi nii taxaw yor seen i kayit bëgg leen firiñ fànceel xibaar tubaab firiñ fànceel leen ko ci wolof ñaan leen yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bi yal na yàlla defar seen i mbir defar suñuy mbir te def ci suñuy poos dara ki nga naan doon ci waxtaan moo di seen mbokk Alioune Sall in uridu إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته